asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala barakaatoo maa ngi nuyu waa Sénégal ñëpp di baalu ñëpp Sénégal ma la Mame Diarra yaay faalu Cheikh Abdou Bara Dolly 100 pour cent depuis 2017 ñi ngi ànd ak Cheikh Abdou Bara Dolly su ma ne maa ngi lu Sénégal parce que Cheikh Abdou lu tax ñu jàpp ko ku ne xam na ci cadre politique la fii gis nañ fi ñi nga xam ne saaga nañ Macky Sall guddi bëccëg tey ñoom ñoo bokk benn table di lekk kon ñun xam nañ lépp Cheikh Abdou ñu xamal la président Abdoulaye Wade mi nga xam ne moo la tànn def la liste départementale ci coalition bi nga nekk mandataire avant mi jot président Abdou Diouf da koo tëj tëj tëj te teewul teewul sax mu découragé sa tëj bi dalaa may victoire tey boo nekkoon 10 pour cent yaa ngi cent pour cent te ñun jeunesse bi muy féminin bi di jeunesse bu góor bi ñëpp ngi sa ginnaaw ba nga nekkee fi durant bi nga nekk sa fee yëpp ñu ngi ñëw fii ci maam baara di waxtaan ak moom mu ñuy soulager ma xamal la sa nekk fee daa mel ñu ñoo fa nekk te duñu la mës a trahir tey nag da di bis kontante ndax ajuma be lañ la wàcceel kaamil sa kër maam sëñ Abdou Dia yàlla def ajuma ji man keroog ki ndaw yi demoon ca laa bokkoon tribunal ba ngay jàkkaarloo doyen des juges huis clos fa lañ nekk fekk fa sëñ aboo Mbàkke mi nga xam ne sa doomu baay la te campagne fu ñu la seen gi sëñ Abo sëñ Abo mention spéciale suñu jógee ñëw sa kër baay ki nga xam ne sa mooy sa taawu baay muy sëñ Moodu Mbàkke ah borom xayra seetaan la benn yoon veille bi fa lañ ko fekk ba jour bi ay 2 heures fa la nekk ay ñëw sëñ assan Mbacke maa ngi siyaar ñi ngi ñi ngi tamit maire yi mouvement bi jigéen ñi ku mel ni su ma nee Maam Jaara wax naa tur jigéen yëpp su ma ne Ousmane Diop ci jeunesse bi wax naa ci tur xale góor yëpp sëñ Modou Niang mi nga xam ne tamit jëwal parti bi ñu ànd ak moom ci mouvement bi demul mu des bàyyil dara te chaque jour mi ngi suñu côté di la ne alhamdulilah da jërëjëf sëñ Touba ndax démb taw bu dafa am taw bu am Touba ànd ak sedd kon dafa leen ne ne suñu mbir moom gañe nañ ba pare lii xew xewal la firnde la Serigne Touba mooy sa maam daf na ñett fanu Dakar te xam nga boo demee Dakar sëñ bi da ngay génn ci incha allah te yàlla def na ko keroog bi la fekkee tribunal bi la fekkee tribunal dafa mel ni da ngaa nekk Touba mi gendarmerie di la ziar te xam ne ni ndombal député incha allah deuxième mandat da nga koy amaat te tey suba ma la fay tabaski ku ne yaa ngi dem ñu ñaa seen kër ñu ngi dagg suñu activité yëpp pour Cheikh Abdou Bara Dolly xam nga ñan laa gën yërëm ñi nga xam ne Cheikh Abdou Bara Dolly da leen daan jox xarum tabaski ak soble ak pomme de terre Cheikh Abdou Bara dafa ñu waxoon ne man de ren du ma umra ci weeru koor ñu ne ko lu tax mu ne parce que lépp cher dund bee cher damaa bëgg la ma daan joxe gën koo yokk ndax damaa yërëm parents yi nga xam ne amuñu te ku ne xam nañu wala duulin daan jar fa fanweer ak juróom tey 400 ceeb yokku nañ suukar yokku nañ xorom sax yokku nañ ndax lan dictature bu ñu bëgg a def bu ñoo xiifloo ba ñu xiif su ko defee ba élection yi jub si ñu sànni xaalis bu ñu voté leen te boobaa damay xamal askan bi en tant que seen doom ñu nekk ndaw ñun ñeen doom yoo xam ne dañoo yeewu ñun kenn duñu nax képp indi sa xaalis lekk leen ba suur te xam ne sunu alal la te xam ne ñun ñoo fi war a jëlee Macky Sall ci troisième mandat bi incha allah wasalaam may ñaax waa Touba ne arrondissement Ndam carte d'identité yaa ngi fa ndax bul ne damay dem guerre sans carte d'identité non non parce que bureau yi du wax kese moo fal Cheikh Abdou suñu carte d'identité la ñuy jëli su jour élection yi nañ sangu ba set du ba neex dëkk ba suur parfum dem jël bu jaune bi bi nga xam ne wàllu la fa la Cheikh Abdou Bara nekk xam naa xob bu jaune bi ñëpp ko xam bu am mbokk mi moom la ñuy voté dugal ko bi mel ni sama yére bii bële bi mu ngi ci suñu coalition baa ngi tey tey mënu yaay yëkkatil ma ko bii mooy suñu coalition grand baa ngi nii xob bi moo ne suñu carte yi xob bii moom ngeen di jël bu jaune bi man li xam ne bëgg nañ mbiri bu ñu defee depuis ma ñu ne ah Cheikh Abdou Bara Dolly gagné na Touba massivement loolu la ñuy naan wasalaam ma naan a ah, merci beaucoup je vous remercie ni euh, ba léegi ñu ngi fii ci kër Serigne baara euh, kër Serigne Bara nag buñ ko waxee moom mooy juru Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly Cheikh Abdou dafa def lu rëy dafa wax ni bu jógee dakaar jaaruma fenn sama kër wayjur laa jëm loolu nag boo ko gisee ci du Abdou ku bëgg juróom la ku fonk juróom la looloo waral mu ni mbooloo mépp nañ ko xaar fii mu ñëw fekk leen fi waaye bi nu ñëwee dañ cee fekk benn jigéen gu mën góor benn jigéenu jàmbaar nee naa ko bu la neexee nekk buur waaye bu la neexee nekk sëriñ sa wayjur wu góor seex Abdoul Ahad Mbacké moo ko jëlee woon dëkk bee di oriental andi ko fii jël sa wayjur wu jigéen jox ko ko kon loolu bu la neexee ngay doon waaye nag monsieur Birame Codou bii nga sa maam ba muy dem gile dafa war waaye ba muy ñëw dafa dañal yow ña nga doon da nga leen fee fekkut comme ni ma ko waxee woon léegi rek doon nga say maam nag te fekkoo leen fi ndax bu la neexee nag doon buur waaye bu la neexee nekk sëriñ sa wayjur wu góor Cheikh Abdoul Ahad Mbacké

di di jàmbaar yoo xam si macha allah soxna maam jaar mi nga xam si mooy soxna maam jaara Diouf di responsable des femmes bëgg lool PDS ta yàgg ci lool nga feggoo ak ñoom toog tey ji loo yëg sa yaram xol bu sedd wala de loo yëg dëgg-dëgg bi nga toogee kër sëñ baar gi tey asalaamaaleykum xanaa mbégte ak siggi nag ndax mbir mi maanaam du ñu ne xeex la sax ak cant lañ koy jàppee waaye ndam la ci ñun lu rëy a rëy ngir ñi nga xam ne bu ñu sañoon lii du jeex mukk te mu jeex ñu sant bu baax kontaan lool am mbégte di feddali suñu mbëggeel gi ñu am ci Cheikh Abdou te nëbbuñu ko kenn di sant nag sama yaay sama sëriñ sama xarit soxna Faati Anta Mbàkke moo ma fital moo ma ñemeloo moo tax ma gëm bëgg Cheikh Abdou jàpp ma te yàlla tax te bu ko neexoon mu rëy bu ko neexoon mu def leneen te defu ko ak sama mama soxna Jaara Gay responsable naaru Karim Baabu ak soxna yu fi toog yépp maa ngi leen di nuyul soxna Ummi Fall ñoom ñëpp di leen ziare bu baax a baax a baax di nuyu soxna yi fi toog yëpp di leen sant di kontaan bu baax Cheikh Abdou lim def looloo ko war ndax diine ji dafa baaxoo euh, maanaam tarixa murit jiitul ma topp ci ak nawloo sa kilifa ak fonk ko munta beew munta réew mënta fuuy mënta ñàkk a xam fi mu war a teg waajuram ku gis waajuram xam ni am na fu ko Cheikh Abdou teg am na nu ko mbirum Cheikh Abdou fu mu ko tollu loolu moo waral ñun ñëpp tey ku jóg ak li tabaski gi di jege jege jege amoo fenn soxla yaa ngi yàkkamti rek jàkkaarloog macha allah suñu jantal honorable Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly pour ñu battre campagne yi gagné macha allah di sant dañuy wax daal li woykat bi di wax li noon yi bëggoon dalu la te du la dal mukk baal lay sax. boo fi ñëwee xol yi. li ñuy wax baa xol yaa ngi féex tey jii nag la xol yi féex ndax dañoo namoon nag suñu honorable député bi nga xam si moom lañ jiital fii ci département bi waaye li ci gën a yéeme waa PDS yi seen xol sedd ci lool ñu àndandoo ak moom te yéene ko ko lool nag macha allah ndax boo ñëwee tey jii doo xàmmee PDS doo xam xàmmee Yewwi doo xàmmee Wallu kon ñu ñëw fi fekk fi nag naaru baabu di kenn nag ah, ah? waaw soxna Umu Fall ma tudd waaw soxna yaaram sant rek moo ko xaw a yàq bu santoon ñang dana xaw a baax su ko ñu jox ko kaddu gi mooy mu sànni ci ay kaddu salaamaaleykum auzubillahi mina seytaani rajim maa ngi nuy góor ak jigéen mag ak ndaw di ziare jiital ci nuyoo bi mun Muntaxa Mbàkke xalifa général di ñaanal ko yàlla wéral ko di nuyu sang yu baax yeeg sëriñ yu baax yëpp di nuy ziare sëriñ Baara mi nga xamante ne mooy xalifa Cheikh Abdou di nuyu ñëpp ziare ñëpp nuyu soxna Faati Anta Mbàkke soxna Maam Jaara Ju soxna Naaru Karim maa ngi nuyu ñëpp ziare ñëpp di am ne tey am nañ mbégte ak kontaante bis na tey lañ doon wàccee kaamil wàccee kaamil ba muuma yi sax wàcce nañ kaamil ndax muuma sax xam nañ li ci Cheikh Abdou ñun Cheikh du bi mu duggee ba léegi nelaw lekkatuñ naanatuñ nelawutuñ ba yandoor waaye nag am na foo xamante ni xool nañ suñ ko sedd na fa guy ndax xam nañ ni e, jàmbaar lañ àndal ànd ñoo kuy yox yox ànd ñoo kuy ragal xam ne rek yàgg-yàgg moom ñu ngi koy xaar ñu ngi ko doon xaar te bis bii lañ doon xaar mu ñëw te yàgg-yàgg lay ñëw di ñaan rek eh, mm, oh, élection yi jëm yàlla may ñu ndam ba suñu président Karim Meïssa Wade yàlla dellusi defal ko retour am mu dellusiwaat incha allah maa ngi nuyu ñëpp ziare ñëpp. Euh, jërëjëf euh, ba léegi comme ni ñu ko waxee woon nag. ñu ngi nag toog ak jàmbaar waaye ñu ngi toog ak jigéen ku mën góor ñu ngi toog ak kuy dox ci social. barki démb dafa def lu rëy dafa xam ne tabaski gi ñëw na te ay responsable am ah war na leen a dimbali mu jël nag ci ab dooleem jël ci alalam jënd soble ak pompe terre jox ko waa koñam muy lu rëy loo xam ne si nag ñëpp war nañ cee xalaat kon soxna Faati Baabu naaru Karim Wade moom lañ toog nii kon naaru Karim noo gisee mbir mi bi nga ñëwee fii nag. jërëjëf asalaamaaleykum maa ngi leen dina nuyu bu baax di leen siyaar tey nag ñu ñëw fii ci kër sëñ Baara Dolli di waajur si Abdou di teeru si Abdou mu jógee Dakar wala ñëw fii ci jafe-jafe yi nga xam si daloon na ko muy ay trof trof yoo xam ne si daloon na ko fan yi tey nag suñu borom delloo siwaat ko ci suñuy loxo ñu kontaan ci lool Mbàkke Bàlla fas yéene ànd ak moom nag ndax nag bay doomi Ablaye Wade ñu ñu waa kër président Karim Meïssa Wade di liggéey président Karim Meïssa Wade département bi ba ñëpp xam ko Cheikh Abdou ba ko Ablaye nekk ne ko yaa sama coalition bii kat yaa nekk tedd la si Cheikh Abdou daa la ñëpp loxo xeebut kenn boo diwut kenn tàll ñëpp loxo nag ne leen nag kaay dañu bokk liggéey moo tax tey ji ñëpp takku tey ba dëgër takk seen i ñi góor ñi takk seen i tubay ñëpp ne fas yéene ànd ak si Abdou Mbacké Bara na ko mu boole ñu boole coalition bu mag nag Wallu ak Yewwi di grand coalition boo xam ne si moo jaaxal nit ñi ñu fas yéene baatal campagne fii ñëpp yéene si Abdou Mbacké Bara Dolly ndam la ñëpp yéene Abdoulaye di département bi nga xam ne si noonu demoon ba ba ba kàttan bi nar fee suux dañ ko delloo si waat ci département bi bu soobee ndax xam nañ fi ñuy jaar xam nañ fi ñu nekk te ñun liggéey nañ ko xam nañ bu baax a baax ñuy jaar te Cheikh Abdou nag macha allah lii bu ko dóor woon sax leen mën na koo dal kon dañuy sant yàlla bu baax ci lii ndax ku ñëpp ne yaa boo lii dóor woon rek leen mën naa kon sant nañ ba nga xamee lii la ndax ñëpp neen ko yaa baax dëgg yàlla ak baaxam ak yëg nit ñi ak faale nit ñi moo tax te ba ko Abdoulaye ne ko yaa jiite coalition bi ñun ñëpp ñu ànd ci ginnaawam bu ñu faalewul woon yëguñu ba ko Abdoulaye ne yaa jiite coalition bi naan ko ñun déedéet waaye nag dañoo faale yëkku ñu mu yoree mouvement am ñëw coalition ak Ablaye Wade Ablaye dina ko yaay jiite département bu ñu kontaan ci loolu fa seen ànd ak moom battal campagne c'est ab dina xelam daal te xam ne balaa 10 bu sooba yàlla daan ne ko wiw ci ensemble bu sooba yàlla loolu daal leen bëgg daan ci taxaw bu baax a baax a baax nag jërëjëf kontaan bu baax waaw salaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu waa Yewwi ak waa Wallu yëpp di nuyu Cheikh Abdou Mbacke Bara Dolly di ko siyaare baax di nuyu soxna Faty Anta Mbacke sama sëriñ sama sang sama xarit di wax euh, alhamdulilah ñun ñëpp war sant yàlla baax sant Seexul Xadim Seex Ahmadu Bamba Xadim Rasul naar lii neex na ndax euh, danoo tiitoon lool foog ni Seex Abdou Mbàkke dañoo julli si fii ci biir njabootam ci biir euh, Touba yàlla dogal ñu bàyyi ko waaye nag lu yàgg nekk dëgg la ndax Sëriñ Touba ay waxam du mas a fanaanaal lii rek la mën a def nag kon ñoo ngi sant ñu ngi gërëm xam ñoo ngi ci ñoo ngi ci ginnaawam ànd waa këram ak ñun ñëpp rek takku rek nekk benn say balaa kii 10 heures la jot ñu jox ko victoire bi incha allah rabbi jërë ngeen jëf maaleykum euh, waa walloog Yewwi ñoo ngi leen di nuyu ah, soxna Faty Anta Mbacké ñoo ngi leen di nuyu lu bare bari di am mbégte ak kontaante ah ci Cheikh Abdou Mbacké mii nga xamante ne moom euh, ñëw nañ fii ci politique ah, boole ñu waaye li ñu gën a indi tamit mooy mbokk waaw mooy mbokk tamit li ñu indi ci la bokk ñu wëlbatiku tamit ah Ablaye Wade jëlu parteem teg ko ko ñu ñëw ànd seek moom ci loolu ñun ñëpp ñun waa PDS gépp nag ànd ak wallu ak yeewi ñu ngi kontaan nag Mbacke di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal xéewal di ko ñaanal fan wu gudd wu ànd ak wér ndax mbégteem mooy sunu mbégte jàmmam mooy sunu jàmm ndax defe naa bi mu fi jógeeg léegi kat ah boo ñu gisee sax xam na sunuy kanam soppeeku nañ sunu xel de xel eh, dem na waaye nag yàlla moom ba paree dafa yàgg ñoo ngi kontaan ci ñëpp nag jigéen ñi PDS yëpp a ngi fi taxaw walloog yewi ñëpp ñu ngi ni taxaw ñoo ngi leen di béggee yéen ñëpp nag di kontaan ci yéen ñun daal bég nañ bég nañ rek ñun ñëpp. asalaamaaleykum wa rahmatulah waa Mouma nekkal askan fi ak coalition yewi ak wallu maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di baal àq ñëpp di balu àq ñëpp ndax xam nañ ne julli gi xat na lool xat-xat yi bari na bàyyi ngeen seen yitte bàyyi seen lépp ñëw fekk suñu fii. ñu ànd teeru Cheikh Abdou Mbacke mu jógee dakaar fekk suñu fii kon loolu ñun dañ ci am kontaan ak mbégte bu baax a baax di xamal ne nañu gën a takkuwaat nekk benn ba doon benn say ndax xam nga lii gàllankooroon Cheikh Abdou Mbacke du dara lu du politique la kon nag lu ñu li ko war a dindi ci ñun la war a bàyyi koo mooy ñu dooleel ko bala ñu ne 11h jot na ñu ne wiiw Cheikh Abdou Mbacke gañe ne loolu mooy suñu ndam nañu takku bokk ndey bokk bàyyi ca ànd liggéey ci xam ne Cheikh Abdou Mbacké fii ci département bi amul remplace lépp benn gàllankoor bu ñu ko def rek dañu xam ne département bi dañ ko ñemewut ci njàmbaaram ak fitam ak bëgg askan wi kon loolu nag ñun jigéen ñi dañu gën a encouragé war suñu bopp àndaat joxante loxo bokk ndey bokk baay fas yéene àndaat ak moom ci terrain bi ba mu gañee département bi ñoo ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di sant nag waajurum bii ci kaw xam ne ba Cheikh Abdou Mbacké nekkee fee ba nëga ni lékkut naanut te man xam naa ci dara bi fii booba yaakaar naa six heures jotut di ma woo sagal ma nag siggil ma xam may kan bi ma ànd ak Cheikh Abdou Mbacke ba. Cheikh Abdou nekk PDS ku ko xool kanamam gi xam ni PDS ju njëkk ja ca la bokk di jàmbaar lool ñoom ñaari maam jaara yi nag ñoo nekk nii maam jaara responsable de femmes bu mouvement nekkal fa askan wi maam jaara responsable des femmes bu PDS di jigéen ñu mën góor nag soxna maam jaara ngeen donn seen i turandoo kon bisimilah soxna maam jaara yow la ñuy déglu. bisimilah. auzu billaahi mina seytaani rajiim. bisimilah rahmaani rahiim barke jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké yàlla na fi yàgg te wér bal la di ñaanal sama baay sama goro ah Serigne Bara Doli Mbacké ñu ngi koy nuyu ñax ñu ngi fii ci biir këram di nuyu sama goro sama yaay yaay bu sa ngoom di leen siyaare yin ñëpp di wax ne dañoo wax ne xel dal na ndax ndaxte nag fit yëpp a ngi woon ci kaw ndax bu fekkee Cheikh Cheikh Abdou Mbacké Bara Doli dafa doon suñu tête de liste fii ci département bi yàlla dogal mu am tolofa tolofa yi mu am ba yàlla teggi ko ba yàlla teggi ko loolu dañuy ci am fierté am ci sant yàlla bu mat a mat a di gërëm Serigne Touba di wax ne metti woon na lool ci ñun lu metti ci Cheikh Abdou metti ne ko ci ñun ndax ñun dañoo buñu sañoon bu ñu gëstoo dañu gis Cheikh Abdou Mbacke baadooli suñu wet ndax mooy suñu nga ñaay nag moom la fi yàlla teg mu jiite nañ suñu list bi ñu ànd ak wàllu ak yeewi ci ndigalul suñu papa Abdoulaye Wade kon bu ñu demee ba lii am ñun ñëpp dañoo war a gën a góorgóorlu doonaat benn objectif bi nag lenn rek la mooy gagné département bi le 31 juillet. ndaxte bu fekkee ne bii yàlla dogal na kat gagné nañ ko kat cinquième président Karim Meïssa Wade day yomb lool kon loolu nañ fexe gañe ko ba nga xam ne dañ nañ ko daan gagné ñu gañee ko nu ko raw jigéen ñi nag moom macha allah laf cat rek gis ngeen leen nii fu ñu woote ñoo fay jiitu bu mobilisation jotee ñoo ca man wax dëgg yàlla jigéen mënta dem sangoor waaye jigéen ñi macha allah gàcce nga laama yéen jigéen département bi law la cat macha allah yàlla nañu yàlla dimbale te taxaw ñu di gërëm nag sëñ Assane Mbacke sëñ Assane Mbacke nag wax dëgg yàlla moom de day ànd naa njabootu sëñ Baara Doli taxawu ko taxawu sëñ Cheikh Abdou Mbacke Baara Doli taxawaay bu am solo loolu kon wax dëgg yàlla dañ koy wax ci département bii sëñ Abdou Mbacke Ndaw honorable député maître Mamadou mi nga xam ne dafa nekk ci dëkk bi rek macha allah di dugg ak a génn di lijjanti ngir lu gañal Karim Meïssa Wade jigéen ñaa ngi nii gis ngeen leen nii di gërëm suñu xale yi nag xale yu góor yi ni àndal ak mag ñi ñëpp ñoo ngi leen di gërëm di leen sant nañu takku rek tey sensibiliser nit ñi ci carte yi nga xam ne mooy suñu SMS bi nga xam ne moom la ñu war a voté ñu gën koo leeral nit ñi gubu mboq bi rek lay doon loolu tamit sensibilisation bi daf ci am solo trop maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp maa ngi den sama doom nag Mami Cissé nii nag di ko nuyu di ko siyaare soxna maam Diarra ñoom soxna Fatou Babou soxna Fatou Anta Mbacke ñoom ñoom ñëpp ak soxna Kiné Ndaw sama mbokkum kër sëñ ma nuyu naa ñëpp jaar ñëpp daal di leen jaajëfal di kontaan